dalee sama kaw ñu bëre ma daan bu taxawee. taxawee ma fekk ka fa duma ka amuñu tiitukaay ci kaw suuf waxuma la ci làmb de ci dara safuñu si. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey mardi 28 ñu ñëw ak yéen ci yéenekaay comme ni ngeen koy amee chaque jour ma ci ànd ak Bokar Ndour. borom jaxaw borom Saloum Bokar maa ngi lay nuyu. Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokku Sénégal rawatina mbokku internet Lutte TV yëpp li ko waxee rek tey la mardi 28 mai 2019 ñu ñoo ko yéen si yéen a kaay ànd si daan àndal muy MSD Prestige ak MSD Impact. ànd ci ak waa waa Voice FM ba ca ak waa Mirkilan FM ba ca Mirkilaan di jëmoo ak Babacar Sarr ñoo fa nekk di fa teewal li TV di teg revue de presse bi ci Gambie ak Mirkilaan FM ñu ànd ci ak ñu ci doon àndal muy MSD Prestige ak MSD Impact xam nga leen di jaay ay oto di luwee ay oto tey nag benn oto laa la tànnal ci oto yi nga xamante ni moom la ñuy jaay waaye oto bii nag Bokar yaakaar naa ne soo ko jëndee moom li nga yor jeex. waaw oto bi Lamine amaguma njegam waaw gis nga ko Mercedes permis ñoom la GLS 450 la nag bi moom xam naa ne moteur bi doole bi mu am tubaar fakala macha allah waaw na ko gars yi xool rek MSD précise moom seen seen affaire yombul na mbir ko moom dañ la ko jaayee si njëg bu xéwalee xéwalee Lamine. oto koy jaay waaye nag njëg gi moom. doy na na trop de. non waaye ñoom woo rek ñoom dina dina dina am nu ngeen def rek parce que moom Lamine seen i mbir seerul. waaye oto bi moom kooku xool xam ne bakkane na lool Lamine. bakkane na lool kon Youssou Ndoye jëndal bii yaakaar naa ne bii moom jaay nag 65 millions. waaw Lamine moom lañ bindagum moo nekk prix bi nga xamante ne moom lañ def rek waaye xam naa ne daal euh, macha daal waaw moom la ñuy daal waaye Youssou Ndoye euh, waaw oto baa ngi noonu bii moom dina mën kado. waaw bii dana mën kado pour paa MSD Impact ñooy jaay pièces détachées waaw Lamine MSD Impact ñoom ñoo jaay pièces détachées ñi seen oto am problème mu pièce nga gis ku oto mu yàgg garage Lamine ba yàqu hmm. ba yàqu fa nga gis oto bu yàqu yow sax dalay métti yow mi amul oto sax Lamine dalay métti ndax problème mu loolu daf fiy ndax MSD impact la ku buñ la buñ la buñ amul pièce bi sax defaral la commande bi livré la ko dans 15 jours loolu MSD impact ñoo koy def ku dugg seen site MSD impact point com di gis xeetu pièce boo fa soxla Lamine. dañuy jaay dañuy luy ku soxla seen numéro téléphone ñu nekk Brésil ak li ko wër ndax yaakaar naa ne Brésil jënd jënd fa oto andi ko Sénégal day metti loolu waaye MSD Prestige réglé na seen problème ku soxla ak Daouda Ngom waaw numéro baa ngi noonu jëleen ko rek yéen ñi féetee Brésil da def plus 55 119 def 64 69 56 42. numéro Sénégal bi Sénégal ak li wër. waaw Afrique Sénégal wala nga ne sous région bi rek da def plus 221 33 835 72 83. loolu mooy seen numéro téléphone ñu ñëw ci journal sunu lamb journal sunu lamb Boy Niang la ci Boy Niang mi nga 2019 bi fële ci arène nationale ba Baye Ndiaye tëgg ko Boy Niang nag mi ngi ci ay waajtaayam diggante mi ngi ci diggante footing nekk ci place bi contact ak boxe. waaw Lamine loolu moo li nga xamante ne moo seq entraînement wu mbër rek Lamine footing moom des fois xam nga ngay daw pour endurance xam dem géej affaire yooyu noonu place contact yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen boo fa jógee Lamine di nga def boxe boxe moom dafa bokk si si si si làmb sato xam nga fëggante yu métti affaire yooyu noonu boo fa jógee tamit foog nga dem salle musculation xam nga rek pour doole bi yokku masse affaire yooyu noonu mu mel ne daal boo ñaa mu ngi si préparation bi Lamine à cent pour cent mu ngi préparation bi à waaye wéetu ci ndax Kalmu Ndour bokk na ci ñi koy jàppale ci wàllum contact bi Zambala Ziza ak ñeneen ak ñeneen waaw Lamine ñoo koy jàppale contact nag ay adversaire lañ yoo tey bu bu contacté ak ñoom mën nañ am si ñooñu Lamine dinañ ko mën a jàppale bu baax a baax si contact bi. dinañ ko mën a jàppale bu baax a baax surtout Zambala mi nga xamante ne combat am yëpp presque ñoom ñaar ñooy a bëreet lool nag. waaw njool la moom tamit dafa ànd balance gisuñ ko mbapat bi gisuñ ko bëre simple bi mu mel ni combat la bëggoon moo tax mu xaw a négliger mbapat bi waaye gis nga ko ba léegi bëriwul Zambala ñu koy encouragé mais mu mel ni daal ñi limal nii wala ñi ñi suñu lamb lim ni muy Kalmoudour ak Zambala ak Ziza mi ay athlètes li nga xamante ni Boy Niang bu contact ak ñoom mën na am dara mën naa am dara waaye nag du ca wet ndax Papa Dia ma nga ca wet ga di jubbanti Cheikh Ndiaye tamit ma nga ca wet ga di jubbanti ak ku ñuy wax Adama Diop ñoom daal ñoo leen di teg ci kot doomu mbër jàngal bëri déggool suñu papa ñu koy nuyu di ko jaar champion la euh, am si moom tamit dina dina am ay astuce yu mu ko loo xamante ni mën a jëriñ Cheikh Ndiaye tamit ku ko xam xam ne suñu grand Cheikh Ndiaye suñu doyen ñu koy nuyu de kooku tamit ñi gis nañ ne daal Boy Niang daal fi mu toll ni il est très bien entouré Lamine xalam demoon na bay neex waaye buum nga dafa mel ni moo ngi waaj dog wala saison bi moom buum bi dog na ci diggante ci Ama Baldé ndax dafa amoon ay cible Gris Bordeaux Modou Lo B52 ak Tapha Tine ñooñu la Ama Baldé pare woon pour bëri ak ñoom waaye dafa mel ni yooyu yëpp combat yu mujjee yàqu la mu mel ne saison bi doy na waar lool ci di ci Ama Baldé saison bu méttee méttee méttee méttee Ama Baldé bu doon gént tam mën nañ ne gént bi mu gént nii la mel gént gént li ñuy naan cauchemar moom la gént mooy gént bu naqaree naqaree parce que mu mel ni daal saison ren Lamine neexul dara ñu ngi doon xaarandi si moom nag ren mu bëri ñoom mhm. mais ñu gis ne daal saison bi ak ni mu tënkoo euh, daal mu mel ni sansam daal daa mujjee daal waaw ndax saay doon na progressé progression bu am solo mu ñu yaakaaroon ne mooy xale bi nga xamante moom mooy njëkk am sens su ak VIP ginnaaw bi mu fi daanee ñu bare bare ku ci mel ni Tapha Tine Malick Niang Papa Sow ak Zos ak ñeneen ak waaye dafa mel ni loolu moom dafa stoppé progression boobu moom stoppé na. waaw progression boobu noonu stoppé na waaye duñ ne stoppé na 100 pour cent sax parce que xëy na li mu la tax rek tey ñi mu waroon a bëreel ku si mel ni Gris Bordeaux ak Bombardier tey waroon na mën a bëreeg ñoom Hmm. donte bu nekkul revanche beeg Tapha Tine sax mais xëy na promoteurs yi ñoo taamul combat yooyu noonu parce que depuis saison bi ubbee ba tey ñu ngi wax waaye gisuñu benn promoteur bu ko taxawal à la fin la Pape Abdou Fall sumboon combat mag Tapha Tine te gis nga ni mooy mu ngi ci plan de carrière si journal bi nee na ngi ci ab lëndëm waaye du doon à 100 pour cent rek parce que xale la ndaw la day waajaat rek yokku cere dolli waroon na ko mën a ubbi sax waroon na mën a bëre décembre bi Lamine ubbi saison bi nga xam a amaat beneen combat. Gris 2 mu ngi waajaat pour ne mooy Auguste Mbagnick Sène ak Pakala nee nañ mi ngi song songaat beneen champion d'Afrique muy Reug Reug. waaw Lamine lamb ji nag si Gris Bordeaux wala suñu lamb si Gris Bordeaux Gris 2 la jàll rek nga xamante ne nii tey euh, bon ñi nga wax la rek après ñi mu daan ku si mel ni Auguste Mbagnick seen ak Pakala mu mel ne nag tey rëg-rëg mooy troisième champion d'Afrique bi nga xamante ni moom la war a laareel euh, examen bi nag dina ko réussir ou pas nañu yoon yàgg. nañu yoon yàgg ba ci ak Luc ak waa TV waa Lansar dafa mel ni ñoo ngi doon wane seen bopp waaye nag fin saison bi la war a gën a mën a wane seen bopp ndax am na ay combat yu am solo di leen di xaar Quench Feugeula Mama Lamine ak Alioune Diop ñoom ñëpp ku ci nekk am nga combat di xaar. waaw ñoom ñëpp ku si mel ni am na combat di xaar ay candidats lañu am bu noonu examen tamit mën nañu ne am na ñeenti candidats yi nga xamante ni Lamine ñoo war a def examen si fin de saison bi Coen su Feugueleu Mama Lamine ak Aline Diop Lamine nekk ñeen ñeenti mun wala ñeenti naataangoo yoo xamante ni Lamine ñeenti xale yoo xamante ni dañu am avenir si làmb ñu leen di xaarandi fii ak saison bi di jeex a def exploit pour Langsar. Coen su a bëri ak Diène Kayra Feugueleu war a bëri ak Double Moteur ak ak ñaaxum. Uh, ñaaxum waaw Lamine mu mel nii rek ñeenti combat la yoo xamante ni tey waa Langsar am nañ luñ préparé ñeenti mbër yooyu nag tey waroon na mën a mën a ànd sax di su mel ni contact ak yeneen ak nag ñëw jàppale leen dooleel leen ndax mbooloo mooy doole. Modou Lo tamit journal bi xëy na samp ab laaj moom laaj ba xam Korité gi États-Unis la koy la koy la koy waajalee xanaa moo jox la nga woo ko rek laaj ko waaw Modou Lo est-ce boo ko waaye sax di ko jot xam naa ne nañ nañ ñoom daal nañ xaar rek bu jullisee ñoo xam ne jullisi na bu jullisiwul tamit ñu xam ne comme mu a fàkk soxnaam yaakaar naa kay bu fa korité tamit day jaadu rek Lamine du mën a ñàkk journal bi samp na beneen laaj ci Gris 2 ak Reug kan mooy enregistré wala kan ci ñoom ñaar mooy njëkk am première défaite am waaw Lamine journal bi mooy sampulaat rek diggante Gris 2 ak Reug Reug ñoom ñaar tey ñaari xale la ñaari ndaanaan la loolu moom journal bi ab la samp rek waaye Sénégal yëpp a koy sampulaat axlu lamb yëpp a koy samp sampulaat hmm. waaye ñu a ñaar ku ne mën na daan sa morom. wan nañu tamit benn oto bu rafet a rafet muy oto Balla Gaye numéro 2 xanaa fii MSD Prestige ñoo fa jaar. waaw Lamine wan nañu daan benn oto bu bees boo xamante ni Lamine Balla Gaye ko moom ci lañu wax muy oto bu yaañu bu rafet rafet rafet di ko ñaanal rek mu ràpp ak jàmm. amiin mu ràpp yi amoon ci samedi bi Fallou Ndiaye organisé ko woon mu waroon a dox ci diggante Gora Sock Tyson 2 ak fa Franc gis gis fa Modja gis waaye nag journal bi Tyson 2 la ñu woon ak xamante ne mooy Gora Sock Tyson 2 nag moom lu mu wax mooy Gora Sock amul fit sax naan day jàkkaarloo ak moom di xeex. waaw Lamine Gora Sock ginnaaw bi ñu ko jëlee mu ne moom dafa nam xeex parce que nee ko maam yi muy bëri yëpp day ñëw rek bëri fi mu toll nii nag Tyson 2 nag Lamine moo mi wax nee na daal fi mu toll nii a Sock day soob noonu rek waaye ñemewul jàkkaarloog man naan ay da jéem a xëy ak man ndax dama koy wàccee Gora Sock tontu na ko ndax tontu dafa rax nee na ko yow da ngay laaj ba xam ñeme naam ñemewuma léegi du ma àgg ak yow foofu lay duma ba pare soog lay daal waaw Lamine Gora Sock tamit mi nga xamante ni moom moom moom moom wax ji rek li muy xam ne daal nee na pare na pour xeex ak moom ba pare ko ba pare door koo daan ñu nuyu gars yi suivre Lutte TV point com yëpp fu waaye mën nekk si àdduna bi ñoo lay nuyu di nuyu waa Gambie ñoom ñoom di jëmoo comme ni ma ko waxee woon sànq rek ñoom Gils ak Jine Mori ak promoteurs yi à la promotion buur promotion ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu xew-xewu làmb ji ak group Lutte TV tuuti yaay Sarr ñu ngi ko nuyu di nuyu Omzo bu Garga yu Tyson ak imaamu groupe bi ndax gëj naa ko dégg lool ci groupe bi di nuyu Jamaïcain di nuyu Amdi Moustapha Max borom mbuur ñoo ngi lay nuyu di nuyu Abdou Boukhari Lo sama xarit ak Petit borom deux jours après Korité Assane Ndiaye borom deux jours après Korité kii daal di lendemain Korité moom tamit mooy tëgg Diourbel. waaw Lamine di nuyu rek suñu grand la di seen Lamine borom mbaylo ngi ñoo koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal di nuyu nag sama grand frère Mame Waly Sène maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di ko ñaanal moom tamit jàmm di ko baaluwaat àq bu baax di nuyu Madou Sène rek cosmétique borom mbaylo ngi tamit laay bu dee wala Lamine Sandaga ñoom Bello Ngueye kenn ko moom moom kay léedi seen ko moom wala mag ak rak la rek ñoom léedi seen ko moom léedi seen léedi seen mooy kilifa ba mooy njaatige ñëpp kon kay mooy borom mooy waa léedi seen borom Bello Ngueye maatu ngi koy nuyu di ko ziar Mamadou Gueye taalibi Serigne Mbaye Sy Abdou ñoo ngi koy nuyu tamit Seydou Traoré Dame Mbow koy nuyu di nuyu Benzema Deme Mamadou Ndiaye Yoff Gueye Teranga Pape Thior ñoo koy nuyu di nuyu tamit suñu paa bi Omar Ngom Sala borom borom borom documentaire bi nee naa la lu la lu la réer ci làmb rek moom moo la koy jox xatab Diouf ñu ngi koy nuyu di nuyu Saliou Gueye Thiès di nuyu tamit Modou sàll ak ki nga xamante ne mooy Cheikh bas Cheikh Bass waaw borom Kër Massar ak Petersen di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Gili Fashion borom Sicap Plateau ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Mouhamadou Mourtada. Tigre Noir ñu ngi koy. Tigre Noir ñu ngi koy nuyu di nuyu Seydina Aline borom Diassi. waaw Lamine di nuyu rek nga xamante ne moo di Baye Saliou ko depuis Espagne kooku suñu frère la di nuy Sénégal yi nekk Espagne yëpp ñoom om ñoom Seydina Omar Sam sama tonton Abou Ndiaye ak séeréem Tata Daba ñoom Khady Ndiaye sama groupe bi nag du ma xanaa dañ laa may soxna foofu waaye amaguma soxna Lamine soxna doomu doomu wutal nag ñëwal ma may la loor loor ah loora loora yi maa mën nañ say si siin laa ko yóbbu de du ñëw Dakar de waaw yow loora gën a sori siin di nuyu ki nga xamante ne mooy Abdou borom États-Unis ak Gambie ñu ngi ko nuyu di nuyu sa doomu ndey Matar Bousso di nuyu Pape Ndir borom parcelle ñu ngi nuy ñëpp daal bookar di ziar ñëpp. militaire sénégalais yi nekk ay teeg ñi ne Mali yëpp Lamine ñoo ngi leen di ziar. di leen ñaanal jàmm. Youssoufa Ndour sama doom baay maa koy ziar di ko ñaanal jàmm rek moom tamit. di wax nag samedi dégg naa samedi la finale bi dem ci guddi laa ko yëg Ligue des champions. waaw samedi waaw loolu la wax de Lamine. yëgoon ko. man de yëguma ko man football dama see xawal lii faral. man maa ngi si Liverpool. yaa ngi ci Sadio Mané. waaw maa ngi si Sadio Mané mais nag ñaari ñaari équipe anglais la rek dërëm bi génnul gaal dërëm bi génnul gaal gi waaye bu Sadio Mané bu ko jëlee. moo moo ko war a jël sax moom moom moo ko jël incha allah. rendez-vous suba incha allah. bu dalee sama kaw ñu bëre ma daan ka. bu taxawee. bu ma fekk ka fa duma ka daan ka. amuñu tiitukaay ci kaw suuf waxuma la tiitukaay ci làmb de ci àdduna. ñun dara safuñu si